mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag waaw dañu fee am gan wala boog dañoo toog suñu grand suñu doyen Boubacar Niang Boubacar Niang Walf Boubacar Niang suñu làmb Boubacar Niang Ama Events waaw léegi daal nag kon macha allah yàlla na cër yi gën a yokk tey nag mu xëy seet si ñu fii ci biir Leewtoo mais ñuy nuyu ñi fi toog yëpp yàgg mi si caméra bi ndey kumba mi bin biram mi assisté di nuyu waa kër gi yëpp booba maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay euh, Babacar di nuy waa Leewtoo TV Leewtoo Leewtoo ñëpp ah parce que Leewtoo production Leewtoo TV. Leewtoo point net di Leewtoo événementiel di nuy ñëpp ah, wax nga ko. maa ngi fi ñëw naa suma kër di fi fekk si suma mag nekkuma suma xarit birima maar yow voilà maa ngi nuyu ñëpp. Boubacar Niang pour nga tënkal ma si lu gàtt rek carrière bi. Boubacar école bi Boubacar presse bi yooyu nu mu dikkee. waaw effectivement euh, ñu ngi comme ni nga ko waxee def suñu cursus normal euh, am bac après nag yàlla def ñun sax philosophie lañ njëkkee département philo lañ nekkoon ba mu yàgg journalisme neexnu ñu dem si Latif Coulibaly euh, Abdou Latif Coulibaly moo ñu formé bi ñu fa génnee ñu dem stade sunu làmb foofu lañ njëkk am sunu stage en 2007 bi ñu fa jógee nag si lañ fekk ji waa Wal Sport ndekuma mi foofu laa ko fekk ah ñu nekk fa wax dëgg yàlla nag liggéey fa liggéey bu am solo pare yàgg fa. Wal Sport ba ñu jóge fa dem waa sport. waa sport waa sport waaw waaw waa sport bi ñu jógee waa sport nag si lañ delluwaat euh, sunu am voilà. Boubacar fan dëkk ci senegal euh, man maa ngi dëkk euh, Medina nii. waaw mais nag euh, globe-trotteur la maa ngi HLM maa ngi Parcelles. Uh-huh. ah doomu Parcelles laa tamit euh, doomu HLM mais cosaan bi moom mooy Medina. voilà. Ah, da nga yor soxna yu bëri. ah <laughs> yàlla mayoon na ma ko mais fu mu toll nii nag benn laa yor. benn des. waaw kon yàlla na nga dolliwaat. Ah, <laughs> amin <laughs> bu ba mbaa amin du la nit problème. non mais noonu la jullit kay comme dañ ne jullit euh, ñeenti soxna kay. nga baaba kon la yow tamit yàlla na la ko yàlla may. amin wax man. kon nag jeex na na ko góor ñëpp am mais du ñëpp a koy am tamit. Ah. donc muy noonu yàlla moom nit bëgg na mais yàlla mooy dogal. du noonu ah. kon nag li ne nekk si kanam yàlla ko xam. yàlla na yàlla defal amiin léegi su ñëwee nag euh, nga nekk journaliste li nga fa nga jaar yëpp liggéey fa macha allah ba tey yaa sa liggéey nekk waa suñu làmb ñuy profité di nuyu waa suñu làmb yëpp rawatina seen kilifa Mamadou Ibra Kana ah. du noonu la tur di nuyu madame Kane tamit mais tey ñu xëy xëy dégg Boubacar Niang nekk si làmb di bind ba benn moment ñu xëy gis ko mu nekk promoteur lu waral Boubacar ñëw boole ci journalisme bi làmb tey comme promoteur. Mhm. je pense que loolu euh, succession logique la ah succession logique la parce que tey jii foo nekk stagiaire euh, Ndeye Comba euh, mën na ma doy seede stage làmb liggéey làmb lépp ci làmb plus de dix ans nga nekk ci làmb donc je pense que en moment donné xëy na di nga bëgg xool leneen ah beneen volet ci sa carrière bu uteex euh, euh, euh, press bi kese bu uteex information kese mais dem léegi ci côté communication ak événementiel je pense que loolu moo ñu ci dugal bi ñu ci dugg sax c'était pas quelque chose de de décidé de façon très claire non euh, comme ça coup de la jàppale nit muy Gibson Production ba mu yàgg nag finalement boo comme on dit l'appétit vient en mangeant ñu dem ba ne mooy pourquoi pas ñu def suñu affaire xool ba xam voilà parce que aussi làmb dafa am ay défis yu bëri fi ne parce que boo xoolee xale yi si nekk jeunes yi ñaata ñoo nekk ay mbër yor seen doole yaakaar làmb kon ñooñu il faut que kenn ku si ne ñu bàyyi leen xel parce que ñooñu bu ñu amatul làmb attention dëkk bi mën na doy waar. mën nañ dugg ci leneen. Ah, waaw bu baax sax. bu baax sax parce ah, ah, parce que euh, problème emploi dafa am Sénégal. kon nag il faut que mu am ay secteurs yoo xam ne ay doomu dëkk bi dañ ci jéem a xool nu ñu si mën a béyee pour jàppale ñi si nekk surtout jeunesse bi. am na solo lool moo la duggal si tëggum làmb am na solo Youssou Ndour tam woyoon na ko woykat bu mag bi noonu na jinax day bëri pax loolu moom waxoon na ko kon ñu lay ñaanal am ci ay succès nekk events mën nañ ne moom événement évén su moom boo ko waxee concerné na lépp mais lamb moom actuellement moom lañ mën a teg loxo ni lii taxawal nga ko muy ban komba muy combat fils de Zal Cheikh ba ak caatu ngéwél bu bu bu bu Yoff en fait ñaari espoir la yoo xam ne boo xoolee ñu ngi dem am na ay jaar-jaar yu am solo si ah wàllu performance yu ñu def voilà euh, war a bëreet nag seen premier grand combat boo xoolee lépp euh, dama fexe dama ne naa fexe def lépp mu nekk une première fois. xam nga man par exemple sama premier combat man. ñoom seen premier combat ñoom. donc. Euh, seen premier grand combat ñoom yow sa premier combat en tant que MMA events yow. très bien voilà donc si noonu laa taxawalee programme boobu. desaat na beneen premier kay ndax tamit su ma jumul ci lu ma mës a gis wala bu bu bu amee itam boog man maa ngi koy doog a gis ma waxu ma mës a am. maanaam tëgg benn combat. tuddewaat ko benn com beneen combat parce que da nga tëgg Fils de Zallo caatu ngéwél jël tuddee ko Ama Balde ak non astafurlah Siteu ak Papa Sow boobu tamit nekk combat. très bien voilà muy beneen première effectivement. Euh, dañ ko jël tuddee ko euh, Siteu bu Langsar ak Papa Sow. ñu war a bëri. ñoom ñaan ñu war a bëri parce que boo xoolee làmb ji en fait li war a lool mooy làmb ji dafa tolloon situation boo xam ne toog nañ ñun presque su ma juumalee ah ñun ñëpp ay deux mois yoo xam ne gisuñu combat bu mag bu am jaaxle di am xam nga et promoteur Pape Abdou Fall ñu koy nuyu de passage daal di ne daal moom foog mu. def dara def dara. mu def dara euh, rakkam di Fallou Ndiaye vraiment jàppale ko si yaakaar naa ni mu demee ñoom ñaar ñëpp ku nekk wax na ko jàppale ko si mu daal di yóotu affiche boobu téye ko te boo xoolee mu ubbi ubbi ubbi yoon bi avant que Modou Lo ak euh, Ama Baldé doogu di taxaw ak Luc Nicolaï donc muy lu am solo ñoom ñaar tamit nekk ay champion xam euh, war a wane seen bopp xale yi moom mu bëgg tamit xale yi jël exemple si ñoom ñoom ñaar ñooñu parce que. Euh, kan ak kan am euh, Cissé Zallo ak Thiatou Nguéweul. ak parce que boo xoolee ñoom fi ñu jaar ñoom tamit fa leen jaar ku si ne mës nga am premier grand combat donc pour motiver leen et puis aussi euh, sargal aussi président Papa Abdou Fall am na si solo tamit parce que aussi bu dul woon moom. Siteu Papa Sow du taxaw. bu dul woon bu dul woon promoteur yi muy ànd ah. loolu du taxaw ak ay nitam ak structure am donc moom tamit mu nekk koo xam ne vraiment dafay nekk si làmb di si def lu am solo te bëriwu si coow ah si ay coow donc euh, c'est le moment daal honoré ko moom ah combat am surtout ah combat am tëgg ah ñitu làmb yëpp yàlla na ko yàlla yàlla na nga ci am ndam et puis tamit comme li ma wax rek yàlla na promoteur yëpp réussir li ñu dugg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wala sax yàlla na doomu adama yëpp réussir li ñu dugg laay wax euh, combat bi kañ la le 26 janvier arène nationale arène vingt 26 arène nationale am na sax yeneen surprise yu si am mais ñu ngi koy euh, kii mais normalement sax euh, pour normalement première face à face Siteu Papa Sow sax war na si man a am. ñu ngi si nekkagul lu wóor daal su ma la jëg voilà voilà mais ñi ngi si pour Siteu moo nekk États-Unis mhm. xam nga moom moo nekk euh, États-Unis mais incha allah. te nga yaakaar ñëwul ci réew de toute façon daal ñu bu fi nekk. am naa xibaar. de toute façon ñoom ñaar daal seen première face à face. bëgg nañ ko def voilà si. bis boobu voilà. am na solo loolu loolu loolu leer na yàlla nañ ci yegg ak jàmm su tëpp Papa Sow affiche bu neex léegi nag dama bëgg ñu génn foofu ñëw ci lamb en général mhm. noo ko gisee situation bi ni actuellement coow li fii combat yu mag yi man tam boo xoolee ñaara taxaw si tëpp Papa bi nga wax Ama Baldé euh, Modou Lo yaa ngi dégg te Ama Baldé Modou Lo tey ki ko tëggoon di Luc Nicolaï yàlla teg na ci kawam ndok ñu koy ñaanal yàlla encore une mu génn si loolu mbër yu mag yaa ngi fi ñoom Balla Gaye mu ñu combat ñoom booy ñaa Gris Bordeaux tafaati ñoom ñëpp a ngi taxaw seen bombar Bombardier situation boobu noo koy jàngate waaw situation boo xoolee booba depuis daaw boo xoolee euh, même situation bi la xam nga tey jii bi fi caalis sax Leewtoo production euh, duggee si làmb xam nga tane woon na parce que boo xoolee ku mel ni Thialis Thialis euh, dafa tëggoon na presque su ma juumulee cinq ah, ba sept journée su ma juumulee donc moom boo xoolee léegi gab boobu c'était réglé mhm. mais problème mu làmb en fait dafay mel ni chaque fois dañ koy boole ci problème mu nit xam nga li nit xam nga tey jii Thialis def na loolu mais Thialis bu xawee reculer nga gis gab feeñaat moo tax ma ne toujours làmb il faut ñu xoolaat modèle économique bi xool de toute sorte que naka la ñuy def ba nga xam ne euh, promoteurs yi non seulement dinañ ñëw des fi attention des fi structures yi des fi ba pare mu am ay accompagnement yoo xam ne euh, moo xam financement lu nu ti doon dina mën a pérenne ba nga xam ne tey jii tey jii da ngay gis promoteur bu tëgg cinq par exemple dix combats ci deux ans dix combats ci deux ans ay programme annuel lay teg nga xam ne dala naan Babacar trimestre bii fii la ñuy lii la ñuy def fii lii la ñuy def fii deux mille vingt ba deux mille vingt cinq mais pour loolu nag il faut modèle yi am mais actuellement ni problème modèle yi mooy poser problème parce que boo xoolee ku nekk da ngay ñëw des fois sa sañ-sañ sa mën-mën ñëw taxawal. maanaam ñëwee doole. ñëwee voilà après xëy na nga gis lu la neex gis lu la neexul. nga nga nga il faut ñu xoolaat loolu yëpp. de am na njëriñ waaye nag boo ko utilisé fa mu ànd ak xel ak technique ak i plan soo ko deful rek du sotti waaw euh, léegi loolu am na mais dama am na leen lu ma lay laaj euh, que ci grand contre bi ngay dégg ren ci làmb ji xale yi dañu mag ñi dañu war a may xale yi sens. Mm-hmm. mais loolu mooy yoon boo xoolee làmb toujours daa am air bu bees bu s am c'est très important air bu bees. air bu bees mooy lan mooy tey ji dafa tolloon foo xam ne boo seetloo jamono yi ñoom tafaaga yi bañ fa nekkee ñoom ni ñoo doon fëgg si bunt bi ak Tyson ak Bombardier ñoom ñu dugal leen bañ leen dugalee génération 2006 bi mooy ñoom ballagay Gaye après ñoom ñoo ñëw mooy si classe bi ñoom bi ñu ñëwee après ñu dugg boo xoolee 2008 2010 si lañ commencé di def ay combat choc ay combat VIP mais tey ji dafa jot tamit Euh, mu am benn alternance générationnelle au sommet de l'arène maanaam ñoom Ama euh, Boy Niang euh, xale yu mel noonu Sa Thiès Reug Reug ñoom ñëpp ñoom tamit Forza ñoom ñëpp tamit ñu dugg parce que xanaa xamoo loolu dafa bokkoon si lu sonal làmb mooy man je dis que hégémonie wu ñoom Balla Eumeu Modou Lo Giri dafa xaw a sonal làmb parce que dafa dem ba nit ñi dañ naan ñii seen biir rek la ñuy bëre. ok maanaam bi ci seen ñoom lay tourné. te léegi seen biir moo tax sax boo xoolee destin sax daf leen yoole. si naka mooy ñoom dañuy daanante 2-0 2-0 2-0 donc yoo affaire yi yoole na leen léegi nag bi mu leen yoolee nag ils sont obligés ñu parce que léegi ku ne ku la daan ñaari yoon xam nga ne moo la mën keneen noonu keneen noonu donc il faut que ñu ubbi bunt yi bëre xale yi mu am challenge xam nga làmb challenge la même sponsor bi pour mu ñëw dugg si yow foog nga indil ko challenge lu bees loo xam ne daf ko gëj gis ngeen dil ko xam nga xam nga des fois moo même mbëri di wax du nu bëri ñoo bokk koñ loolu sax dafay freiner làmb dafay wàññi làmb parce que tey ji exemple bu ndaw Gris Bordeaux Tapha Tine boo ko tëggoon Medina toj Medina toj parce que Medina ak Bawol dañoo yàgg dëkk te boo tëggee combat bi rivalité day feeñ donc exemple yu mel noonu ay challenge la te dafa am solo te daa war di am te dafa war di am mais làmb léegi salaan yi. ko dañ ko dindi. maanaam xaritoo bee bari xaritoo bi fii calcul. dafay dafay dafay tooxee dafay tooxee làmb si. Ama Baldé Modou Lô noo noo ma ngay jàngatale boobu combat. amee ah, combat bu am solo la parce que xam nga ñaan ñooñu yàlla def na bokk naa su mu juumlee si euh, rare journaliste ah, Euh, je parle sous le contrôle de Ndekuma parce que jamono jooju ñoo nekkoon euh, Ndekuma Fall ñoo nekkoon euh, Wal Sport maa fi génne woon bi Modou Lo daane Ama Baldé sa mbapat ba muy doon coow lu rëy jour boobu waa parcelle fajar boobu maa ngi dëkk parcelle fajar lañu ñu ma fëgg si. xam naa kontaan. ñu ne ma noo am parce que zëm kan. zëm kan zëm kan waaye Moussa Diouf ji fële si si si mooy terrain ci parcelle stade bi fi ñu nekk di defar eh, stade bi stade bi mhm. foofu la tëggee woon mbapat bi su ma jumale si en 2006 nga gis ci photo si image Modou Lo daan Ama Baldé la yokkoon nag coow li mooy Ama Baldé jamono jooju dafa daanoon am na ku mu daanoon xaw ma Tafa la xaw euh, am na ku mu ak bàyyi pël wala. voilà yu mel noonu ñu ne ko nax xam nga Modou Lo mu xaw a ne moom xamu ko. maanaam bëgg a weddi ne na ko. léegi nag si la waa parcelle yi daw ñëw nag ne ma nag comme journaliste nga ñun dañuy indi preuve ne ñaari mbër yi xamante nañ te te sax Modou Lo daan na ko mbabat coow li nag dem. kon xam nga kon dama la bëgg indil foofu benn genèse historique boo xam ne ñaari mbër yooyu dañoo yàgg am contentieux dañoo yàgg am contentieux parce que boo xoolee depuis 2006 seen contentieux mu ngi fi. ñu ñëwaat bi ñu jógee 2006 ñu ñëw si combat Papa Sow Ama Balde dégg nga li Ama doon wax sa Thiès. waaw mafia ku ci bokkul. ku si bokkul. Ah, da dalay dal ah ki la xaw ma yebal si. waaw maanaam ku ñeme xaw ma doo yónnee. doon wax voilà. comme maanaam baat yooyu moom moom moom li gënoon tefem bi gënoon mag si. combat mox Papa Sow moo doon daan Papa pour jot Modou Lo parce que aussi Papa bi mu commencé euh, fréquenter Modou Lo euh, nitu làmb dañ jàpp ne kon ñoom ñaar même bu fekkee ne ne bokkuñu écurie am na connexion bu am seen biir ba tax na soo porox ndoolu genre porox ndoolu quoi boo jaaree fii mën nga ak àgg fële parce que ay doomu ndey lañ ah, donc amaa yaa jàpp loolu daan Papa di xaar mm-hmm. affaire bi te yegsi mm-hmm. mais boo xoolee lu ne dégg na ko mais des fois aussi je dis que sportif ah ku mu mënti doon des fois da ngay xaw a mën a jël risque aujourd'hui risque ah persévérance su Ama Baldé mhm. dafa fay xam nga lu tax mhm. xoola saison blanche ñaata combat ñaata avance cest à moom du saison blanche kese mhm. mais moom dañuy ñëw indi avance ba si sita gars yi bañ ak stafam bañ honnêtement man ñii di wax ak yow tey jii. bind naa wax naa dal naa seen kaw. muy Jules Balde di magam ak Abdou Bakhoum di di manager am yàgg naa leen ne li ngeen di def tegoo leen ko fenn. Mhm. parce que booy bi dafa war a bëri warul mën a gis xaalis taxaw mu koy bàyyi te làmb dafa doy mhm. ñu ñëw ren nga gis diggante ma Tapha mhm. li si am aussi xam nga ko mu mu mu pousse tafaatin naam nag na mu ko defee aussi du nu ko rafetlu waaw waaw parce que bu fekkee ne ne yow nit ki doo bëreex moom rek wax ko sa njëlbeen bu wax ji sori mais dem ba accepter ba dara desul léegi lu dul jël boo ay jiixi jaaxa lool moom kenn du ko rafetlu nañu waxante dëgg dëgg nag moo neex yàlla du noonu mais dañ koy wax rek pour beneen mais boo xoolee loolu bi mu si loolu yëpp boo xoolee li tax mu def ko moo doon mais xaar boobu tey jii. am na si ndam. parce que am na Modou Lo te fa mu ko amee nag dàqati lépp xam nga fu mu ko amee. Mhm. ak couronne bi. couronne bi ak couronne roi bi. donc xoolal xaar na Modou Lo dem ba téye si Modou Lo téye tamit téye Modou Lo boo xam ne dafa yor couronne. maanaam boo ko daanee nekk roi des arènes kon muy combat boo xam ne luñ si mën a wax bëri na. Mhm. muy combat bu neex muy combat bu am solo di ñaanal nag kaka euh, tëgg foofu mu ne vraiment yàlla jële ko fa ndax foofu moom kenn du fa yéene benn doomu aadama tolof tolof nag du ñaat mais daal ñu ngi koy ñaanal daal xam nga mu dellu siwaat ba mën a toppatoo combat bi moo structure am yëpp Luc Nicolaï en ko ba li mu si bëgg daal yàlla defal ko si kontaan naa ci yow. merci beaucoup Babacar jërëjëf Leewtoo ak seen euh, auditeurs yi seen euh, internet yëpp. Ah, merci beaucoup ok merci jërëjëf.